African vibes. nañufagaru ci coronavirus nañufa. ngeen jël seen propre initiative. ñoo joxe doom bi. bëgg nañ xam ne lan moo waral loolu. ak lan moo tax ngeen di joxe doom bi. waa ñu ngi lay sant di la gërëm di la certifié di wax ne ne don yi gouverneur luñ ko war a jox loolu ak suñu diggante la ak suñu kilifa Mamadou kase comme moom c'est un républicain buy jëflante ak kilifa. day jëflante ak moom mu bañ doon loo xam ne dañ koy fësal mais ñun tey ñun ñi nga xam ne association boo xam ne moo ko créé muy Ankawuli muy président bi ay ndawam tey ñoo jël lu mot 500 lave mais ak 2000 cartons saabu nar ko may Tambacounda fépp sans discussion sans appartenance politique yóbbu ko si jumaa yi si cimetière yi ci marché yi si arrêt Jakarta yi police gendarmerie fépp. ngir sensibiliser nit pour nous coronavirus vraiment c'est un geste à saluer. Mhm. ban message di lancer population message bu ñuy lancer population bi mooy nañu le président de la république Macky Sall. notre gouverneur de la région mais jàppale aussi le ministre de l'intérieur Nous nit ñi toog seen parce que feebar bi du caaxaan toog seen moo ñuy mun a dimbali ndax bu nu ñu toogul seen kër nu ñuy wëree ci mbedd bi mun nañu wàllee maladie bi te di la fàttali que ne ñun bii mooy suñu ñetteel don parce que njëkkoon nañ def ay don ci ay daara yóbbul ko taalibe yi boobu ça fait deux semaines de cela defoon nañ ko tamit gaz ko taari bii nag mooy suñu ñetteelu action bu gën a am doole bu am envergure moom la ñëpp gis parce que dañoo keree concept bu bees bu ton bu tudd Tamba ville propre te dinañ ko teg fépp ci Tambacounda. Merci beaucoup. 905